waxtaane eh, démb eh, capitaine Touré mi nga xam ñàkk na ci liggéeyam entre autres yoo xam ne eh, xew na ci mais dañu gis ne démb au lieu que nit ñi ñu gën a focaliser wu ci ci procès bi peut-être ñu àtte mbir mi mu jeex li leen gënoon a intéressé mooy peut-être aji ñëw na lu mu sol réseaux sociaux yi loolu rek lañ doon partagé naka nga jàngatee loolu. dossier bu mu ba léegi buzz lay wut. buzz baa nga commencé ci ba ñuy violé xale bu jigéen bi mu ni dañ ko violé mu dem gendarmerie ñu ko demal uti preuve. mu dem war a nangu ñu violé ak couple mu am preuve foofu la buzz bi commencé ku ñuy violé nga dem ci gendarmerie pour porter plainte ñun la lii dafa woyof utile utile utile preuve nga soog a dem pour waat ñu baanewaat la pour nga am preuve <laughs> ak yomb foofu la buzz bi commencé ñu ni déetawaay ñu impliqué ci ñeneen ñu seen ñu seen yoon nekkul ci viol bu doon am ci salle de massage ñii di miim ñii di jubbanti benn gendarme bu doon yor enquête bi ni moom bakkanam mu ngi ci xotti gerte daw laqatu quelque part def vidéo dugal Facebook ni tuut ñu génne ko ci gendarmerie nationale euh, xeexo daal di am fukki bakkan ak nangam faatu ci bakkan yooyu faatu ñëpp faatuwuñu ci même jour manifestation bi bi ci mujj dama koy répété muy bu parcelle bi wax naa ko démb dama koy waxaat ñëpp ñëpp gis booy bi bi ñu koy dóor bal muy daanu dafa coïncider ak ñu koy filmer bu pourtant ñun ko bal tëpp mu ni bëpp mais loolu daaw ba léegi amul benn enquête ba tey mënuñ ko dugal ci bës réew mu fukki bakkan ak ñeenti faatu te ubbiwuñu benn enquête loolu loolu nu mu tudd parlant même ci enquête boobu Mansour de gis nañu enquête bi nga xamante ne maanaam euh, communiqué bi ministre bi yor wàllum kaaraange bi réew bi génnee démb ci kii dee fële ca Kër Masar euh, mais euh, Kër Mbay Fall mais malheureusement bokk na wala waroon na ak li nga xamante moom la waajuram bu góor wax que ni loolu moo faat xale bi. de toute façon ci jamono bi xale bi di faatu. bi mu faatoo ak bi vidéo faatoom tasee ci réseaux sociaux yi benn la nee nañu bal lañu ko dóor. xam nga nag communiqué bi nga xam ni mooy bàyyeeku ci gouvernement bi souvent waxuma la non seulement waxu ñi fekkee wala ñi ci mbedd mi wala ay famille dañu koy weddi mais souvent même autopsie dafa koy weddi Biraye mu ngi koy wax démb misaalu xale bu jigéen <coughs> ngeen baal xale bu jigéen bi faatu bi faatu Ngor donc autopsie bi li mu génne déjà dafa weddi nguur gi ci laa doon potoxon doole di wax beneen faatu bu amoon Casamance ñaari autopsie bokkul benn bu nekk weddi bi ci des donc yu mel noonu. mënu mënu mënu mënoo fexe ba nit nit ñi duñ ko dénoncé mu nekk buzz beneen bi ci des mooy ci question bu càlla bi mm-hmm. xam nga càlla wax naa la sànq ni la am na ñu nekk ay millionnaire ci dossier Adji Sarr dossier Adji Sarr bi nga xam ni dañu dem ci réseaux sociaux yi di weerante benn booy bu xëyul gontul ñu ni joxe na 10 millions di topp nit naa ko di ma fay sama 10 millions ci réseaux sociaux yi parce que da nga ni woon am nga vidéo Ousmane Sonko ak Adji te amoo vidéo yi di nga ma jox samay vidéo mbaa nga jox ma sama xaalis ñu ni benn om d'affaires moo ko doon wutloo vidéo bi jox ko 10 millions waaw homme d'affaires bi luy yoonam ci vidéo bi nga xam ne mu ngi ci loxoy justice ban pouvoir la am pour demandé bay génne 10 million pour fay nit mu jox ko vidéo Ousmane Sonko aji Sarr <laughs> loolu mooy buzz euh, ñu ni déetawaay aju ñu solo ko ba mu mel ni statue maquillé ko ba mu mel ni Mickey mu toog def discours am rafet discours bu rafet rafet ñu koy dicté muy wax ñun ñëpp ñu ngi koy gis fii la jàll leer ak seen TV te du journaliste leer ak bu seen TV doo nga fa nekkoon yeneen journaliste nga fa woon. Mhm. la tax ñu ruux nag ñoom donc ñoo ko xam ñu toogaat tuuti monté waat beneen procès aji sañ sa ba mel ni pitaaw sol ruusam bu baax kuy dem tribunal ñu violé la dossier bi ay bakkan yu bëri rot ci am ñu nekk say avocat ci réseaux sociaux yi nekk bitim réew mais lan moo ci xew ba nga ñëw ravissante ci façon boobu noonu xam nga ni aji waaw est-ce que xam nga ni aji mii mhm. feeñ dem xuma bëgg dem tribunal mhm. li xale yi di wax namul dala waaw loxo ma ngi ci soos wax dëgg yàlla vermante waaw vermante daal aji loxo ma ngi ci soos léegi nag dossier bu dossier bu mel noonu nag yow incha euh, allah wax dëgg yàlla mhm. kenn mënu cee génne buzz parce que aji tubaarkàlla mu ngi ci biir buzz bi. ñi koy layal te ñu bëri ñi koy layal bi ma ko waxee muy ñi koy wax ci réseaux sociaux yi ñu bëri. wallahi li ñuy wax gëmuñu ko. mais lu leen poussé ci ñu jël position bu défendre aji ñoom dong ñoo ko xam. beneen bi ci des mooy ci biir même avocat yi am na benn benn allure boo xam ne ci benn benn avocat yi am nañu ko. ah xam nga dossier bi dossier bi nag dossier bi nag am na doole dossier bi diis na. yooyu yëpp boo ko dajalee bakkan yi ci rot soppeeku aji xam nga aji mi njëkkoon a génn aji mi safaanoon na lool tubaakal la <laughs> loxo ma ngi ci soos ak li ci li ci li ci xew lépp ci ay manigance mm-hmm. ba ñu ci ba am ñu ci def ay commerce ci ay vidéo homme d'affaires di ci génn ay 10 millions ay chômeur di ci joxe ay 10 millions booy y'a problème dosi bi di début à la fin buzz la. léegi nag ñi nga xam ni politiquement dañuy xeex li ñuy wax mooy viol am na justice va faire son travail d'accord yoon moom faaw mu def liggéeyam moom dong moo mën a àtte ñu juboo wul mais li ci jaxasoo ci wàllu buzz li ci jaxasoo ci ay bakkan yu li mu transformé ci ay millionnaire li mu transformé ci lu di dafa bëri ku sa yoon nekkul ci dossier jàmbur warul ci mën a génne tey 10 millions ba booy yi taxaw ci réseaux sociaux yi naan booy mbay dina ma fay sama 10 millions parce que moo ni ma woon am na vidéo bu Adji Sarr ak sonk ñu jox ko 10 millions mu jox ñu kele bu dara nekkul booy mbay moom itam tontu da ngeen di caaxaan rek c'est-à-dire xam nga loolu itam mënta loolu itam mënul farce yooyu farce yooyu mënu ci sukkandiku pour éliminer benn Birahim Touré la benn Mansour Diop ci ay caaxaan caaxaan baaxul caaxaan baax baaxul aji loo ma ci sos Mansour Ba aji Birahim euh, fii li Mansour di wax sànq